ba sax nga ne bëgg ñu def ko ab hôpital boo ko mënee sax nga tabax jëmmi hôpital baag mboolem jumtukaay yi nga xam moom lañ cay jariñoo ak lu mel ne jënd ay téere yi alquran wala téere yi xam-xam yóbbu ci béréb ndax ñu ko fay jànge moom daal lépp luy xeetu luñ mën a jariñoo boo ko wutee yóbbu njariñ la ci yoonu yàlla bu la neexee boole ci wax nañu koy jariñoo bu la neexee bàyyi ilimaan ja mbaa àttekat jullit ba wax nañ koy jariñoo loolu moo tudd xubusle mbaa waqafle du tee nag moomeelu jëmm ja ñu bàyyi ko ci sa loxo ndax dañuy bañ bu ñu nee ki joxe na lii ci yoonu yàlla keneen ñëw ne may daay defal yàlla daal di bëgg a dindi la fa kooka defoon bëgg faa def leneen déedéet ku dikk rek tey defal yàlla bëgg faa def leneen faaw di ci diisoonteeg ka njëkk na def ngir yàlla te moomoon jëmm ja buñ ci amee déggoo baax na buñ ci amul déggoo moom bu ko neexee bañ ne ko doo fi def dara illaa an yakun bare bu dafa nekk daalik loolee fil maraw bi ci biir tawat fa daalik kon loolee naafitun aj wéy la mina sulus ci sulus ba in kaana dem nekk na li xëy di waali si ñeel kudul aji doon bu fekkee la mu maye woon mbaa la mu saraxe woon mbaa lu mbaa la mu xubbusle woon daa fekk boobu moom mu toll ci tawati faatu kon mënees na ko limaale ca ndénkaane ya bu waa ji faatoo ñu génne ko ci ab sulusam ndegam xaj na ca waaye day fekk nag comme jëmale woon yii bañ a bokk ci ña koy doon ndax addis ba dane woon la wasiyata li waarisin maanaam koo xam ne yoon def na mu war laa doon doo mën a wax ne su ma fi jógee dañ ma ko joxal nangam ci sama alal dañuy bàyyi rek doon ba ko yàlla féetale yàllaa ko ko jagleel te noonu la ko toll mu doon lu toll noona kon nag yu mel nii su fekkee kam ko jëmale woon wala ñam ko jëmale woon bokkuñ ca ñee doon kon bu waa ji faatoo ñu boole ko ci ndénkaane ya génne ko ci sulus ba ndegam xaj na ja bu fekkoon ne nag da ko wax ci biir tawat ba noppi nag wëlbati ku wér ca tawat joojee kon dana mën a wéyale la mu waxan ndax ndegam wér ba tey bu nu waxee ne sañu te dénkaane bu ma fi jógee nañ ma joxal diw te fekk kooka war koo doon nañ ma ko joxal nangam ci sa alal mbaa boog mu bëgg a dénkaane lu ëpp ceeru alalam yooyu yaar xam nga dañ koo aaye woon waaye jàppane lu mu ci mën doon ñee doon suñ ko wéyalee rek loola wéy ndax day mel ni seen yëf rek la ñu wëlbatiku joxe joxe gu yees wala xibatu maye li si lekk rahim yi ngir jokku bokk aw li faqir wala ñeel aji ñàkk kas sadaqati ñu mel ne saraxe laaru joxe deetu dellu fii xaaca moom soo mayee nit te seetaale ca bokk gu dox seen diggante wala seetaale ci ne moom dafa néew doole wala seetaale ci ne moom day waaju baax mbaa da di ab jirim yooyu yëpp dañ ko yemaleeg saraxe nga xam ne doo sañ a deltu gannaaw di ko nangu ndax yooyu tuyaabay alaxira moo tax boo déggee ni waxe day mel ne soo mayoon koo xam ne ab jaambur la ci yow te itam moom bari na alal day mel ne kon bu la neexee nangu la nga ko mayoon te fekk na demewul noonu boo xësee maye rek doo sañ a nangu la nga maye woon ndax hadis ba wax na ne alxaidu fii xibatihi kalkal bi yaawoodu fii xay ihi maanaam maye ba noppi delluwaat bëgg koo nangu day mel ne xaj bu wàccu ba noppi dellu di lekkaat la mu wàccu woon gis nga ni mu ko ñaawalee ak it beneen hadis ba wax ne laa yaxillu li ahadin ay yahaba xibatan suma yaawooda fiiha illa alwaalida kenn sañta maye ba noppi wëlbatiku bëgg koo nangu déedéet loolu mu ne daganut lu may nag waajur waajur daal muy waajur wu góor wa mbaa waajur wu jigéen wa moom lay bëgg a wax léegi sax ci yàqub téere bi ku ci nekk am na fu muy saña nangoo wala woo ñeel na ko añ yaa tasira mu nangu maa la nga xam ne waxe ba may na ko li wala digi ñeel doomam ja ak saxiir ja di aji ndawe awil kabiri wala ju mag ja maalam yun kaax li fekk takkaleefu ko soxna li daalik ngir loolee aw yu daayen mbaa dee fi leb leen teeg moom ngir loola aw yu dis wala mu sos fil hibati ca may ga xaadasan ak sos nee na yow baay bi loo may sa doom mi ndaw moom doom ja muy mag la neexee wëlbatiku nangu ko am nga ca sañ-sañ lu may nag la nga ko may daa tax ñu may ko soxna mbaa la nga ko may daa tax am ku ko lebal wóolu ko ba lebal ko mbaa la nga ko may da ko defaraat defar bu yees boo xam ne wuti naag na mel ba nga koy door a may loolu ko am moom nangu ko wees na waaye bu fekkee lu mel noonu amu ca moom la nga ko mayen moom sa doom ji sañ nga koo nangu moo xam doom ji góor la moo xam doom jigéen la moo xam ku woomal la moo xam ku ñàkk la daal luy tee nangu bu ci amul rek sañ nga koo nangu wal umu ndey taaxu tasiru dana sañ a nangu maadaama li fekk sax na ala bu bàyyi xay yanti aji dund fa isa maata ndem faatu na lam taaxu tasir kon du sañ a nangoote nee na ndey moom lam may doom ja sañ na koo nangu ndegam bàyyub doom jaa ngay dund waaye nag su fekkee ne bàyyub doom ja faatu na te fekk doom ji kàllafiwut kon doom jirim la te jirim kenn du ko may di ko nangu tax mu naa walaa yong tasaru deful nangoo min yet yi min ci ab jirim wala yut mu te am jirim min xibali abi mi ngi tukkee ci wàllu baay maanaam ñàkk yaay rek taxuta doon jirim waaye nag baay bi nga xam ne moo gàddu dund ak lépp fekkee daa faatu te doom ja kàll feegut su boobaa doom jirim la yooyu jamono nag ndey ba fa nekk nag fekkee mayen na doom joojee dagam bàyyi faatu nag moom ndey ji du sañ a nangooti waaye bu dul loolu rek dana sañ a nangoo wa maa loo xam ne wax ba xaw may na ko lépp ni ngi ñeel doomam ak saxir yi aji ndawe faxiyaasatu ak làqam ak dencalam la xoo ñeel ko jaay san aji dagan la itaalam yeskun dem dëkkewut daalika loolee aw yelbas wala mu koy sol in kaana dem nekk na taw ba ndimala nee na sa doom ju ndaw boo ko mayee dara dik nga may ko kër wala pàkk mën nga ko koo téyeel waaye da nga koy sàkkal ay seere ba noppi nag bañ koo dëkkee xanaa di ko ko luyeel bu dee ay yére itam nga daal di koy dénk keneen xamal ko ne ko may naa ko ko seere ko daal koy génn say loxo te bañ a nekk di ko sol waaye bu fekkee da ngaa may sa doom sàkk koy seere ne may naa sama doom ji kër gi itam bu fekkee da ngaa wéy di ko dëkkee rek ba far gàllankoor am may gi day yàqu gàllankoor nag mooy faatu mbaa sisir bari bor bañ jël alal di ko faye bor ya loolu lu mat a xam la bu nee saa doom ju daw ci kat may naa ko kër sàngam mbaa pàkk sàngam te daa ko koy téyeel loola baax na waaye nag niñ ko waxee da koy bañ a dëkkee waaye su dëkkee lépp mbaa mu dëkkee la ci ëpp ba far faatu may ga yàqu na ba tey bu bari wooni bor ba ñuy fayoo alalam ba tey dal koy boole ca pay bor ya su fekkee nag dafa dëkkee genn wàll ga bàyyi genn wàll ga ba gàllankoor am ni ki faatu gi ñu wax léegi mbaa sisir muy bor yu bari yi genn wàll ga mu dëkkee mooy yàqu ga mu dëkkee wutoon ba tey may ga dana wér kon daal nga takk foofu ne mu may doomam kër ga ba noppi wëlbatiku dëkkee lépp mbaa mu dëkkee la ci ëpp moom bu gàllankoor amee rek ki faatu googu ñu wax mbaa bari bor yi may ga yàqu na bu fekkee nag la gën a néew la dëkke woon moom du yàqu may ga du yàqu bu fekkee ne it genn wàll ga la dëkke woon genn wàll ga mu dëkke woon rek moom la may ga yàqu la ca des moom du yàqu loolu mooy bi mu mayee këram doomam ju ndaw man na ko koo téyeel ci kaw noonu ñu ko leerale su mayee doom ji mag nag moom na ko doom ji mag ja jël téyeel boppam su fekkee daa jël nag këram may ko ay doom yu mag am lu mu ci téye dëkke ko te lépp la leen may bis bu faatoo ba ñu koy topp ci bor yu bari la mu jot a dëkke rek moom jeex na doom yu mag ya mënatuñu koo jël waaye nag lañ jotoon a jël ba téye ko moom bu baree mu néew ñoom doom yu mag ya ñoo ko moom may ga du yàqu waaye lañ ci sàggan nag jëlewuñ ko ci seen baay ba gàllankoor am nag loola duñ ko mën a jëlati te itam nu teqale bu baax a baax la wax ne may na ko doomam mbaa may na ko keneen ca ba muy wér di ànd ak sagoom sañ a soppaniku ci alalam loola ak maye la bokkut ak àtteb nag su ma fi bàyyikoo nañ ma joxal diw nangam loolu nga teqale ne suñ te wax doomam mbaa soxnaam mbaa baayam mbaa yaayam su ma faatoo nañ ma ko joxal nangam ci sa alal waxoon nañ ne la hadis ba nee na la wasiyata li waarisin képp koo xam ne rek yoon jox na ko cërub doon kenn du mën a dénkaane ne su ma fi jógee nañ ma ko joxal nangam ci sama alal kon buñ jaawale jamono ya koo koy wér ànd ak sagoom saña soppandiku ci alalam daal di maye ci teyu ba kanam loolu bu ko neexee alalam jëpp jëpp jëpp mën naa wëlbatiku maye ko mbaa mu saraxe ko mbaa mu joxe ko addiya waaye nag bokkiwul ak su ma génnee àdduna nañ ma joxeel nangam loola moom nañ seet ne buñ ko defee ñetti xaaj ñaari xaaj ña suñu caa wax dara way doon ne ñoo ko moom buñ defee alalam ñetti xaaj benn xaaj ba ca la sañu dénkaane ne boo fi jógee nañ ma ci defal nangam tey bu mu tudd kenn koo xam ne war naa doon ci ne nañ ma ko joxal alal boo fi jógee déedéet ku wër sa doon rek lay sañ a wax nañ ma ko joxal nangam lu mu dénkaane nag te way doon yi nangu koo wéyal gannaaw ba ci seen coobare loola moom baax na doon ci sax daa waxan kuy doon nañ ko jox nangam te ñoom ñi nga xam ne ñooy doon nangu nañoo wéyal loola day mel ne kon ñoo maye seen alal maye gu yees nga xam ne kon kilifa diine bu fekkee ab taalibeem ca ba muy dund daa dénkaane woon ne su ma fi jógee saa alal ji nañ ma ko joxal saab sëriñ di ki kër gam dëkke woon mbaa leen lu foor ci alalam na xam ne ku def alal yi taalibeem boobee ñetti xaaj benn xaaj ba rek ca lañ ko war a génneel dénkaaneem boobee mu ne woon na ko ko jox waaye nag su ëppee ceerub alal yi taalibe ba dañuy laaj ña nga xam ne ñoo seq dono ba ba xam nangu nañu bu fekkee ne ñoom ñëpp ay mag yi jëmm lañ ñu mën a wéy ak seen alal te ñu wéyal loola loola mën a wéy su fekkee nanguwuñ ko wéyal nag la ci yoon wéyal rek moo war a wéy te it moom mi dénkaane kat bala ñoo seet ceeru alalam dañu njëkk a seet ay borom ba noppi fay borom moom moo war a jiitu bu bor yi génnee nag la ñu door a def alalam ñetti xaaj benn xaaj ba ñu génneel ko ci ay ndénkaanam ñaari xaaj ya ñu jox ko ñay donn buñ génnee ndénkaan yi nag ci ñetteelu xaaj boobee te mu des ba tey des ba dañ koy boole ca dono ba waaye jàppal ne fay bor moom mooy jiitu yooyu yépp koo xam ne lam bàyyi mënta fay ay borom mbaa su fayee day jeexal tànk kon doon amatu fa génne ay ndénkaan amatu fa kon yaxub téere bi mi ngi toll woon ci di wax naa ku may sa doom kër di ko dëkkee ba gàllankoor am mbaa nga may ko ay yére di ko sol ba gàllankoor am kon may ga yàqu na mu jàll nag ci wa innama yajuusu naka dana dagan loxoo ñeel ko maa la nga xam ne yoon rafu def na ko xam bi xëy ni ci jëmmam maanaam lam koy may te man ko koo téyeel day nekk loo xam ne xam nañ ko muy jëmm ju ràññiku ni ki kër sàngam mbaa fas sàngam mbaa oto sàngam mbaa rajo sàngam muy jëmm ju ràññiku waaye su ne rek may naa ko nangam ci wurus mbaa nangam ci xaalis ni ki téeméeri dërëm mbaa million la cay baax rek mooy mu génne ko loxoom jox keneen mu téyeel ko ko waaye moom su ko defoon ci ab coffre-fort sax ne li ma ko may def naa ko ci coffre-fort bi waaye génne wu ko joxe mbaa sax mu kaste ko ne li ma ko may fii la nekk fekk mi wuru sa xaalis waaye génne wu ko joxe téye ko noonu rek buy faatu rek maye ga yàqu buy bari bor rek maye ga yàqu bu dee wuru sa xaalis bi ñu jëfandikoo moom day aajowoo mu génne ko jox keneen mu téyel ko ko bala ko mën a téyel daal mu jeneen jëmm juraañi ko ju bokkut ak wuru sa xaalis ni ki kër gi nga wax léegi mbaalu ko nuru bu dee wut sa xaalis moom lay baax rek mooy génne ko loxoom jox ko keneen mu téyeel ko wa amal kabiru daal mag nag wala te juusul dagan xiyaasatuhu làqam nga la xooñeel ko sa doom ju mag nag moom mën a wéeg boppam boo ko mayee da nga koy jox mu yóbbu waaye doo ko mën a téyeel su fekkee sa doom ju mag la ci at waaye day nuusuur boo ko jox alal mu yàq ko nag kon ba tey moo gone gi ñooyee moo da nga ko ko mën a téyeel ci sart yi la waxoon rek wala yarjahu du sañ a dellu arrajul waaja fii sadaqatihi ci saraxam fii sadaqatihi ci saraxam wala tarjahu te du dellu ilayhi jëm ci moom illa bi miraasi dara ci ak doon ñaan nag boo xësee saraxe ngir yàlla na nga moytu loolee nga saraxe woon ñëwaat ci yow lu may daa mënta ñàkk nekki kan ko saraxoon daa faat ñu koy miraas loolee ñëwaat ci yow nag doon ab dono am sañoo waaye day la nga saraxe moom doo ko sañ a jënd te buñ la ko mayee bul ko nangu bul fexe daal ba mu ñëwaat say loxo mukk mukk lu may daa mënta ñàkk ci ni ñu ko waxee rek wala ba asa ayit an yashrabe mu naan min la ba ni maa ci soowam la nga xam ne tasaddaqa saraxe na bii ci moom boo saraxee lu amul soow mel ni aw nag wala ab gàtt mu ne kon sañ ngaa naan ci soow moom waaye nee nañu sax bañ ngaa def moo gën daa wax ayut rek waaye bañ ngaa def a gën wala yastar yi du sañ a jënd maa la nga xam ne tasaddaqa saraxe na bii ci moom loo ko saraxe moom buñ ko dee jaay itam bul ko jënd ak luñ ko yombal yombal wala moo xoobu ku ñu may lil xewam bi ngir ak wot imma azaba benn mu yoole mooy benn mu delloo alxiimat alxiimata xayma ja aw radda wala mu delloo alxibata jëmi may ga fa in faatat ndem raw na fa xale yi war na ko xiimatuhaa xaymaam wa dalika loolee ida kaana ndem nekk na yuraadee fi gis ni àndahoo naka moom araad na mun a ak sawaaba yool ba lul ma xoo bi ci kañu may loxoo ñeel ko nee na buñ la mayee may goo xam ne kooku defu ko ngir yàlla mbaa dara da ko defee ngir bëgg am loo ko jox ni ko ñeeñe yi defee ci boo xewlee wala sax bu dee sa doom bi yaay mbaa ni ñuy jaamoo ci aade wala fi xam ne kooku day ñëw jox la loo xam ne jox la ko rek ngir dimbale la mbaa dara daa am lu mu bëgg rek ba tax mu jox la ko mais kon buñ xasee xam ci firnde ne moom mi joxewut ngir yàlla joxewut ngir ak bokk mbaa dara day joxe ngir ñu joxaat ko kon neen doo ko mën a téye rek noona faaw nga seet lam la joxoon lu war a toll ci xayma nga jox ko ko mbaa nga delloo ko jëmmi lam la joxoon su fekkee lam la joxoon raw na nag moom kon xayma ji rek moom nga koy jox moom nag araama luñu ko sax daganal nañ ko waaye dañu ko jafe lool lool ndax kiy joxe te la muy joxe bëgg luñ ko ca tegal moo tax mbaa bëgg lu ko gën a tax la muy joxe dañuy jàpp ne lum lay jaay la la nga koy joxaat ñu jàppe ko mu di njëg lépp lu dagan ci jaay ak jënd dagan ca lu araam ci jaay ak jënd araam ca saye boo takk léegi ne moom bu la xasee jox xaalis mbaa wurus saye boo jox ko leneen lu bokkut ak xaalis mbaa wurus su la xasee jox ñam itam say booy jox ko leneen lu bokkut ak ñam ndax bu la joxee xaalis moom lay baax rek mooy boo ko dee joxaat xaalis nga jox ko lu toll ni lam la jox kese yem ca tam yu loxoog loxo fa saasay saasa xam nga loolu borom kersa mënu ko bu la joxee ñam itam bu fekkee ñam nga koy joxaat wenn xeet wi la noonu lay mel day aajowoo bu la joxee nga joxaat ko fa saasay saasa tamu yam képp-képp bu yaari xeeti ñam yi wuutee it dutee moom ba mu la joxee fi saasa rek nga ko war a jox ñam wi nga koy joxaat fa saasay saasa te xam nga loolu ba tey yombut kon na ngay takk rek ne su la xasee jox daal lu bokk ci wurus mbaa xaalis ci xel ba jox ko leneen lu bokk te xeetu wurus ak xaalis bu la xasee jox ñam fexeel ba jox ko leneen lu bokkut ak xeetu ñam ndax dangaa waxoon ne jaay ñam jënd ñam moom faw loxoog loxo lay nekk su fekkee ne yaari xeet yi ngeen di jokkalante wenn xeet waa te mën koo denc di ko dunde daa war a yem képp-képp bu fekkee yaari xeet yu bokkul la mbaa mënis koo denc di ko dunde it daa war a nekk loxoog loxo charte yooyu daje ci dafa xaw a jafe kon moom bu la joxee ñam rek fexeel ba jox ko lu bokkut ak ñam bu la joxee nag loo xam ne du wurus du xaalis du ñam nag su fekkee mën ngaa fexe ba jox ko xeetu lu bokkut ak lam lay jox moo gën a wóor kon ci takk-takk mën nga ne moom bu la joxee lu xeetoo wurus mbaa xaalis mën nga koo jox yow marchandise mbaa ñam mbaa ak jur bu la joxee xeetu ñam yow mën nga koo jox wurus mbaa xaalis wala xeetu marchandise xeetu bagage bu mën doon te bañ koo jox ñam bu la joxee nag loo xam ne xeetu marchandise la maanaam bagage bu mën doon rek waaye moom du ñam du wurus du xaalis mën nga koo jox leneen lu bokkut ak xeetu lam la jox bu doonee marchandise baax na waaye tam bañ tañ bañ a bokk wenn xeet rek boo ko joxee ba tey wurus mbaa xaalis baax na boo ko joxee ñam ba tey baax na moom daal na nga moytu mu jox la ñam nga joxaat ko ñam na nga moytu mu jox la xaalis nga joxaat ko xaalis ndax xaalis ak xaalis moom daa war a yemoo képp tey loxoog loxo mbaa mu nekk riba ñam ak ñam dañoo war a yem képp nekk loxoog loxo mbaa mu nekk riba ñam ak ñam mën naa ëppante ci kaw yaari xeet yi bañ a bokk mbaa muy loo xam ne mënisu koo denc di ko dundee waaye teqale yooyu daa xaw a bari kon daal moom bu la joxee ñam bul ko jox ñam bu la joxee xaalis bul ko jox xaalis bu la joxee marchandise maanaam lu bokkut ak ñam ak xaalis a wurus jox la rek xeetu bagage mbaa xeetu marchandise la nga koy jox mën naa nekk xeetu bagage mbaa marchandise waaye bu mbokk xeetu la mu la joxoon bi mu la joxee marchandise mbaa lu xeetoog marchandise bu la neexee moom jox ko xaalis mbaa wurus dara nekku ja waaye nag boo koy jox yow itam marchandise mbaa bagage na yaari xeet ya wuute moo gën a wóor ndax daa am luñ cay seet ca biir yow góor gi nga xam ne yaa xewle wala yow jigéen ci nga xam ne yaa xewle na nga seetlu képp ku dikk jox la xaalis te nga xam ne moom daa bëgg ku ko ca tegal dara fexeel ba jox ko lu bokkut ak xaalis su fekkee am nga fayda yi nag lam la joxoon nga delloo ko ko fa saasay saasay saasa loola dara nekku ca ku ñëw jox la aw ñam fexeel ba la nga koy jox yow bum nekk ñam ku la jox loo xam ne du xaalis du wurus du ñam fexeel ba la nga koy jox ak lim la joxoon ñu bañ a nekk wenn xeet bañ a bokk wa yukrahu def na sib an yahaba mu may li baadi waladihi ñeel lenn ci doomam maalahu alalam ja kullahu léppam wa amma shay'un daal dara minhu ci alal ja fa dalika loolee saa'irun aji dagan la daa wax ne soo amee lu ëpp benn doom daa ñu sib daa ñu sib nga jël sa alal jëpp mbaa la ci ëpp may ko ca kenn bàyyi ñi ci des de sax nga jël ca lu néew may kenn bàyyi ñi ci des dara nekku ca si buñu ko loolu nag gis nga ni wax ne kenn ci say doom nga may ko sa alal jëpp mbaa la ci ëpp ak sib dong la agul ci araam te kat buñ seetlu addis bi nga xam ne kañuy wax an-Nu'man ibnu Bashir xam nga ne na addis ba andee baayam mayen na ko dara ci alalam bëgg yonante bi seere ne moom kat may na doomam ji di noomaan nangam lii yonante bi ne ko ndax sa doom yépp nga may lu toll nii baay ba ne ko déedéet mu ne ko dellul man du ma nangoo seere loolu naka baay bi noomaan dellu daal di dindi may ga waaye gis nga rek waa Mali ñoom liñ ci wax sib rek la nga jël sa alal jëpp mbaa la ci ëpp may ko kenn ci say doom bàyyi ñi ci des nee nañ day tax ñu bañante ña ca des wëlbatiku jàmb la yow waajur wi ndax loolee nga def li ci xaw day war daal mooy na ko addis ba tiisale ak ni nga xam ne moom la ko gis gisu waa maalik ñoom waye fale ndax ñoom nee nañu su fekkoon ne yonante bi wax gam wax kooka ne ko ndax sa doom yépp nga may lu tol nii mu ne ko déedéet mu ne ko man duma seere bu fekkoon ne day lu araam yonent faaw yonent bi leeral ko ne ko may gi baaxut baaxut leeral ko bu wér a wér kon nga xam ne kon ñoom jàpp nañ ne su aayoon dëgg-dëgg faaw yonent bi xoppal ci digg bi ne ko loolu sañeesu ko boo xoolee saraaba nag moom lay wane naa wa dalilu ala ma dukira ma warada anna nu'man ibn bashir نهى له أبوه شيئا من ماله وأراد أبوه أن يشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا بانغ جانغ أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا قال فرجع فرجع فرد حتيته ووجه الدلالة للمشهور من الكراهة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمره بالرجوع وامتنع من الشهادة فدل ذلك على عدم كمالها ولو كانت باطلة لقال عليه الصلاة والسلام إنها باطلة وعلة الكراهة أن حطية الأب كل ماله أو جله لبعض الأولاد يؤدي إلى حقوق الباقين وحرمانهم و... ويؤدي إلى تباغضهم والمطلوب الحرص على المواصلة والموادة والعدل بينهم لكي خاو داي وار دال موي بو خولé ات فقه بي موم دا فا ويفال لول لول لو ديمي ني تا بو جانغي حديث بي موم اك ني مو ديكه اك نامو دوخé mu nek lu diisa diis waaye daal loolu mooy gis gisu atteb ngirum malik ci lu deme noonu wala ba'sa ayut an yatasaddaqa mu saraxe alal fuqaraa ci way ñàkk ña bi maalihi ci alalam ja kullihi léppam lillahi ngir yàlla mu ne nag bañuñu sa alal jëpp nga wëlbatiku sarax ko ñi néew doole te yàlla tax waaye nag loolu nee nañu kat bu fekkee ne gannaaw ba da ngay toog di ko réccu mbaa fekk nga amee njaboot goo xam ne da ngay jaaxle ci loo leen di dundale déedéet loolu ëpp naa def moom daal soo génnee la nga war a dunde ak la nga xam ne moom nga war a dundale sa njaboot ba noppi nag la des waaw kay loolee nga joxe ko ci yoonu yàlla sarax ko ñu néew doole mbaa neneen noo ko def ci yoonu yàlla rek loola taamu nañ ko lool nee nañu sax bu fekkee ne am na ñu war a dundal ñoo xam ne bu joxee lam yor du am lu mu leen dundale leneen te daal di araam kon muy joxe loolee ndax ñooñee seenu dund moom la war kon nag da nga amul fenn fu mu ko sukkandikoo lu may ca loola bu wëlbati ku joxe ko benn yoon noona faste ay loxoom loolu da daal di araam wa man waxa ba ku maye xibatan ak maye falam yaxusaa te làqu ko maanaam te jëlu ko almawhub kañu may la hoñeel ko hatta marida ba tawat alwaaxibu aji maye ja aw aflasa wala mu fàllasu ma wala mu sisiru falay sa lëxoo di ko ñeel xëy na suñ ci waxtu woowee xabduha nga moom nga xam nga dañ ne woon maye balaa sotti nga jëli ko mais nag bu fekkee may nañ la nga yéex ko jëli ba gàllankoor am gàllankoor nag mooy kala mayoon tawat na tawati faatu mbaam far faatu mbaam bari bor bañ taxaw ko di ko sisir di fayee lam yoroon bor ya mu ne kon jeex na mënatoo ko jëleete léegi may nga yàqu na walaw maata doonte faatu woon na almawhoobu ka ñu may la ñal ko kaana kon nekk li war a sa tihi di ñel way donnam alxiyaamu taxaw ga fiihaa ca may ga xalal waaxi bi ci aji mayee ja as saxiix ji aji weex bu fekkoon ne nag waa ja nga xam ne moo maye moom faatuwut amul benn gàllankoor moom mi ñu mayeen ci boppam rek moom moo faatu ko it ay mbokkam mooy ña ko war a donn mën nañoo dem jëli may ga ne ko ah yow kat suñu mbokk mi nga mayeen moom génn àdduna waaye nun may ga la ñuy jël si kon bul yemale ka maye woon faatu mbaam am gàllankoor ak kañu mayeen moom faatu mbaam am gàllankoor kañu mayeen moom faatu mbaa mu am gàllankoor du tee ñu mën a jëli may ga wa man xàbb sa ko xubbus li daaran kër fa hiya moom kër ga xalaamaa nekk na ci la nga xam ne jaxalaxaa def na ko xale ci moom in xiisan ndem làqeef na ko xam ne moom ci njëkk faatoom nga dafa jàll si ci xubbus le waxoon naa ne xubbus le ak waqaf le ñoo bokk max naa leeraloon naa itam max naa ma mooy jëmm ja nga xam ne yaa ko moom nga fab njariñ la féete la yàlla bu la neexee nag nga boole ci waxaale na nga bëgg ñu defe ko na bu la neexee itam joxe rek noona àttekat bu baax ilimaan ba seet nu mu gënee ñu doxale ko noona lu ca nekk baax na bu la neexee sax jëmm ja moomoo ko dëgg da nga ko luye rek ni ki yow nga luye kër rek def ko daara ji ñuy jànge mbaa fu ñu néew doole ñu di fatu bu liyaas bi jeexee mu jeex loolu lépp teew koo nekk xubusle mbaa waqafle loo ko ci tuddee baax na li waxagul nag mooy su fekkee da nga ne kër gii xubusle naa ko waqafle naa ko daal kon nee na sart yooyu ci joxe rek moom la ñuy topp noo bëgg ñu doxale ko ko it noonu lañ koy doxale waaye nag na àgg ci ñamu jëm njëkk gàllankoor di am